bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabiilalamin walsalaatu wassalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka anta al-aliimu al-hakiim allahumma allimnaa maa yanfa'unaa wanfa'naa bimaa allamtanaa wa zidnaa ilman assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu alhamdulillahi alladi axyaana baada ma amaatana wa ilayhi nushur réew mi fm 97 point 5 delswaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar wi ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Drame bokk sant yàlla buur tabaraka wa moom mi ñu may fanaanum jàmm ñu koy ñaan yal na ñu may kendaluk jàmm naa di fàttali mbokk yi rekk la suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci adkaaru istiqaad min an nawm di ñaan bi nga xamante ne képp ku yàlla xéewalal bam la may occasion bu toll ni mu delloo la sa ruux nga nar dundaat beneen bis bu bees lala yonent bi ne looloo la war mooy nga sant yàlla ñaan ñaan bi nga xamante ne mooy alhamdulillahi alladi mboolem xeetu cant yu kawe ñeel nañu yàlla buur bi nga xamante ne ahyaana moo dundal baadama amatana gannaaw bu mu dogalee su ñun faatu bu ndaw di nelaw te it wa ilayhi nushur ci moom yàlla lañuy ñuy ximbile ko keroog bu ñu suubu ci nelaw bu mag bi nga xamante ne mooy dee xéwal bala yàlla defalal nga suubu ci nelaw bi nga xamante ne mu la ci wax ci alquran wa jaalna nawmakum subaatan man yàlla maa leen xéwalal xéwal bu toll ni nelaw ba tax na nelaw boobu moom la ñu bokk di def ci ay waxtu su néew ci ginnaaw lañu takkale tàqale kook nelaw boobu mooy keroog bu ñu déggee noddkat bi di nodd ne assalaatu xayrun min an nawm julli bi nga xamante ne moo leen di jokkale seen digganteeg seen boroom julli bi nga xamante ne mooy njëlbeenu mbir ba ñuy àtte jëfu doomu aadama bi keroog bés pénc julli bi nga xamante ne keroog ba ko yàlla doon jox yonentu bi sallallahu alayhi wa da ko invité ci kaw mu ñëw mu jox ko julli julli woowu de moo gën nelaw ba ngeen di nekkee bu ñu xoolee ñaari mbiri bi yàlla daka jox jaama comme cadeau beneen bi yàlla daka bëgg a jox jaama mi waaye dafa am kum ci seppi invité ko fa moom mu daldi di wéet ak moom mu jox ko juróom fukki julli juróom fukki julli yooyu walla juróom fukki waxtu julli yooyu yonent bi di ko wàññilu ba borom bi defal ko ko juróomi waxtu yu julli waaye daf ñu ne tamit képp ku sàmm wanteg juróom waxtu yu julli woowu daa mel ni remplir nga condition ya nekk ci juróom fukki waxtu yu julli yooyu bi maanaa képp ku sàmm cinq heures yi fa mel ni dañ lay fay tiyaaboo comme ku julli cinquante yi kon képp ku sàmm wanteeg juróomi waxtu yu julli dinañ la fay yiw bu toll nii comme ku julli juróom fukki waxtu yu julli kon julli boobu mooy doon audience ba doomu aadama bi di am ak boroomam ci bés bi ba tax na kado bi la yàlla jox yow doomu aadama bi di nelaw nga di ci dalloo ndax moo ñu ne laa waja'alnaa nawmakum subaatan man yàlla maa leen may kado bi ni mel leen defal kado bi ni mel ngir ngeen di ci dallu di ci noppaleku ma defal leen wa ja'alna na ma'ashan ma ma defal leen bëccëg mu doon waxtu yi kër këri ñiy dem tool wa nañu dem tool ba béy ñuy dem bureau nañu dem biro chauffeur bi na jël oto bi élève na dem jàng étudiant bi na dem université ba ila axirihi kenn ko nekk na dem yëngatu ji ci jamono yi bëccëg bu jant bi soowee coono ba ngeen nekkee ci bëccëg moo tax borom bi ne wa jaalna nawmakum subaatan maa leen defal nelaw mu doon dallukaay bi nga xamante ne yéen ñëpp ci bokk yem amul xaj seen xanaa ki ko bañ def waaye képp ko ko bëgg rek amul fay amut laaj audience xanaa sañ ngaa tàggu ne maa ngi nelaw loolu dong ba xam mën naa nelaw loolu kenn du ko laaj nit loolu yow yaay sentir ne danga ngaa war a nelaw nga dem nelaw kon borom bi subhaanahu wa kado bi nu mel buñ ñu ko joxee yonent bi nee nañu woote kat bay woote ci néegu yàlla bi di ci jàkka ja bu yeggee fu muy ne asalaatu xayrun min an nawm da nga war a tàqale ko euh, nelaw boobu ndax wootekat bi noddkat bi lam la ciy wax mooy julli audience ba nga war a am ak sa boroom moo gën nelaw bi ngay nelaw kon jógal dem waajalal sa bopp dem rencontre ak sa boroom ci néegam ya ci kaw suuf si te mooy waxtu bu njëkk bi ngay njëkk julli di julli suba ba tax na yonent bi sallallahu alayhi wa moo ñu baaxe nañu kado boobu yàlla jox doomu aadama yi ñu di ko jëfandikoo di nelaw nee na képp ku taqale kook nelaw woowu ci jamono bi nga déggee noddukat bi ne julli moo gën nelaw bi ngeen nekkee boo jógee dafa am li nga war a wax loolu nekk njëlbeenu kàddu ba ngay tàmbale sa bis ba nga xamante ni yàlla may na la occasion nga nar kaa dund ci bés boobee kàddu boobu mooy adkaaru istiqaaz min an naw baat yi nga war a wax yow jullit bi gannaaw bu la yàlla yenkee wale gannaaw bu la yàlla jàppandalalee ba nga yeew ci nelaw yonent bi ne na nga ne alhamdulillahi alladi mboolem xeetu cant yi ñeel nañ yàlla alladi ndax mooy buur bi nga xamante ne ahyaana moo ma may occasion ma dund baadama amaata na gannaaw bu mu dogalee ci man nelaw bu ndaw bi nga xamante ne mooy dee bu ndaw bi te wa ilayhi nushur ci moom yàlla la ñuy dellu du ñu dellu ci kenn du ñu dellu fenn fu dul fa moom yàlla tabaraka wa taala mboobu moo tax looloo tax boroom xam-xam bi di xasanul basiri rahimahullah mu daldi di jokk nasiha conseil laaye biir la mu doon def ak askan bi ne ñu képp ku yàlla may okasiyon nga fekkee bis bu bees ci bésu àddina yi kon mu ngi lay avertir di la bàyyiloo xel bés boobu moo tax mu ne la ibnu aadam yow doomu aadama bi innama anta ayyamun xamal ne bis yay jaar di jàll moola fi tax a fi tax a nekk tax na kullama dahaba yowmun bépp bis ba ñëw jaar jàll xamal ne zahaba baaduk am na la ci sa dund bi nga déggee ci ne bépp bis ba ñëw jaar jàll xamal ne yaa ngi gën a jege dee yaa ngi gën a sóore dund yal nañu yàlla may fan bu gudd bu ànd ak wér ak fekk ak tal waaye du jaas waaye sañ nañ kaa ñaan tamit mu meeñu fan bu gudd moo tax démb bañ doon taxaw ak yéen noo ngi taxawoon ci bunt bi nga xamante ne mooy xadiisu Muaz bun Jabal radiyallahu anhu la ko yonent bi sant sallallahu alayhi wa mu ne ko bul deñ di wax ginnaaw julli farata bu ne allahumma ainni ala dikrika wa shukrika wa xusni ibadati tey ndéem soob na borom bi subhaanahu wa taala ñu war see jokk beneen bunt bu bees ak beneen saxaaba ci saxaaba yonent yi sallallahu alayhi wa sallam ñaan boobu dadi ñaan woo xamante ne yàlla suñu borom tabaraka wa taala dafa bëgg saa su ne bi tàllal ko ay yoxoom mu di sàkku fa moom la mu tële ndax loolu yàlla rekk a ko man moo ko yor te moo koy joxe kon ci moom dong la ko war a sàkkoo subhaanahu wa taala ba tax na xadis bu ñu war a jokk xadis ba weesu woon démb mooy xadisu abi hurayrata radiallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal man lam yas'al illaha taala yagdabu alayhi xadisun saxiix axrajahu albani fi saxiix aljaamic mbokk yi ñaan yàlla dafa am importance bu mag ci diine islaam ñaan yàlla kenn waru koo baña def ñaan yàlla kenn waru koo doyadal dal ñaan yàlla kenn waru koo yoñoxal ndax moo la moom toujours dalay bàyyiloo xel ne am na buur bu fi nekk mooy sa boroom sa mébét sa bëgg-bëgg sa yéene lépp moo ko xam moo ko yore te moo la koy jox kon saa su ne dalay bëgga a fàttalikuloo ne am na ki ko yor am na ki ko moom am na ki nga ko war a ñaan kon fàttalikul sa buur fàttalekul sa borom boobu mooy buur bi nga xamante ne moo fi tax nekk te moo la fi taxa bay la yonent bi dénkaane woon Muaaz bun Jabal lu mel noonu la yàlla bëgg jaam bi saa su ne mu di ko ko ñaan ngir mu defal ko ba tax na xadis ba ñu war a jokk ci xadisu démb bi mooy jëlee nañ xadis bi ci sahaabi bu mag ki ngi naan abi hurayrata radiallahu anhu abi hurayrata radiallahu anhu yan na ko buur yàlla gërëm nee na anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam suñu yonent bi di ar na man lam yas'al illaha taala képp koo xamante ne du tàllal loxo yàlla di ko ñaan ah yagdab alayhi yàlla dakay mere allahu akbar suñu yenent bi moo ñu xamal ne borom bi tabaraka wa taala da ko ne képp koo xamante ne day bañ a tàllal loxoom di ma ñaan man yàlla jëmm jooju de dama koy mere waaw waaw ku rëy rëylu ku nga xamante ne rëy na ba du tàllal loxo yàlla mu di ñaan buur bi tabaaraka wa taala nee na kooku de dama koy mere kon képp koo xamante ne yàlla mere la dee ka ñaan moo tax mu ne anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaal abi hurayrata radiallahu anhu nee na suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee nañu man lam yasalillaha taala képp ku bañ a ñaan yàlla buur bu kawe bi buur bu màgg bi yagdabu alayhi yàlla day mere jëmm jooju moo ne yow doomu aadama bi yàlla la mu xam ne loolu daf ko warloo ak yow defal na la loolu te ñaanoo ko ko yàlla xam ne loolu la mu warloo ak yow la mu defal la loolu mooy mu bind la mooy mu def la nga doon nit waaye mooy tamit bi léegi lam ma xam ne warloo na ko yow mooy mu roof la énergie ya ngay nokke nooy bi ngay nooy ñaanoo ko ko waxoo ko ko bi mu ko doon roof sa jëmm ji tàggowu la bi mu ko doon roof sa jëmm ji waxut la pareel ma ngi lay roof énergie ba ngay nooyee yàlla ci baaxam ak ci maanduteem ak sopp bam la sopp yow doomu aadama bi mu roof ci yow ruux énergie balay may ngay dem ko ñëw moo ne loolu ñaanoo ko ko de déedéet yàlla xam na ne loolu daf ko warloo ak yow la mu warloo ak yow bari na lool te defal na la ko fekk ne ñaanoo ko ko léegi mu bañ laa bàyyeeg sa bopp bañ laa bàyyeeg seytaane ma nekk ko yow ci kaw trottoiru àdduna si moo tax mu ne la seytaane boobu léegi-léegi mu taaral la dund bi léegi-léegi mu xicc la yóbbu ci mbaal yamuy mbaal doomu aadama waaye yàlla suñu borom tabaraka wa mu daal di la yënkeewal mu ne la léeg-léeg dee del fàttaleku sama jëmm ji del xalaat sama jëmm ba tax na nga di ma ñaan boo may ñaan ma di la musal ci mbaalu seytaane ak ci fiiru seytaane seytaane fiir yamuy muy fiir lenn ci jaami ñaan ma man yàlla mu ma musal la ci waaye yow doo ñaan yàlla mu musal la ci pexum seytaane yàlla bula la bàyyeeg sa sago seytaane dalay lay këf yóbbu ci gaayaam yi waaye boy ñaan yàlla ma yàlla musal ci piirum seytaane yàlla ma yàlla musal ci pexum seytaane yàlla ma yàlla musal ci gaawu seytaane bu la yàlla nangulee sa ñaan ndooju mucc nga ci seytaane ak gàngooram yi ba tax na yonent bi nee na képp ku ñaan yàlla yàlla dakay mere boo ñaanul yàlla say soxla ñaanoo yàlla say mébét ñaanoo yàlla say aajo seytaane mooy ñëw placé ci sa xol booleeg la kenn ci élément yañ nekk ci kaw suuf si mu ne la diw sangam di boo bëggee sa soxla bi di faju boo bëggee fu fajum aajo demal ci moom orienté na la ci aliyem ña nekk ci kaw suuf si boo demee si ñooñu doo fa gis dara la niroog ni yàlla waaye loo fay gis mooy élément wu seytaane yamuy garde ak yamuy jëfandikoo ak yemuy gàlloo lu la ko yóbbee ñaaka ñaan yàlla parce que danga rëy tàllal say loxo ñaan yàlla ba tax ne yàlla jéppi la mere la seytaane xam loolu mu ñëw am espace bu yaatu ci sa xol su ko defee mu di la orienté ci gaayaam yi mu di la orienté ci allié mi seytaane di la këlli-këlli di la reyloo ay mala di la tuurloo ay deret la ka tax moo ne dangaa dëddu ñaan yàlla rëy nga toog tàllal say yoxo di ñaan yàlla rëy nga bokk ci fu ñuy ñaanee yàlla rëy nga laaj boroom xam-xam ni ñuy ñaanee yàlla nga rëy rëylu loolu ci sa jëmm ji ba tax na seytaane ñëw placé ci sa xol occupé fa espace ba fa yàlla war a occupé moo tax mu di la gololoo di la këlle-këlle di la diri di la yóbbu ci alliés yi nga xamante ne ñoom la so ñoom la associé ci biir société bi ñooñu di la tegtal ngay jëf boo demee bi nuur ci bokkaale ak weddi yàlla ci sa ñàkk xam lu la ko yóbbee rëy rëy ba nga rëy ngir tàllal loxo yàlla mu bàyyi la ak espace seytaane ñëw këf la ci espace boobu ñu di la reyloo ay jur ñu di la tuurloo ay deret lu tëggawul ci xam-xam lu tëggawul ci cellaange lu tëggawul ci wéetal yàlla boo dajeg sa boroom nag bu la bu la ko borom bi àttee nga rëccu rëccutu bi toll ni ah dootoo mun a am lay xawma ko du la ci génne ndax yonentu ba yàlla yónni leeral na ba mu leer nañ xadis bu gàtt ba ñuy waxtaan ak yow bokk na ci li mu leeral donte xadis bi guddul waaye noonu la ëppee solo téere ba mu jox yonentu boobu di alquraanul karim jànguloo ko boo ko jàngee dinga fekk ay yonentu yu mag ay nitu yàlla yu mag xatta bu dee dafa am fi nga jokk ku xalli yoon woowu bokk na ci ñaxam ñaan yàlla nu mu amee dayo ba tax na kooku da doon tàllal loxoom di ñaan yàlla bu dee ci kër gi nga jokk ki xalli yoon woowu boo demee gistu mbiram di nga gis ne am lu mu bind ci loxoom ci jamonoom jël na temps yu bari làqu fenn fu ko fenn fu ko kenn gisul fu ko kenn xamul fu ko kenn du fekk muy bind ak loxoom yu tedd yooyu xeetu ñaan yàlla woo xamante ne kenn xamut nu mu mel sa ñàkk gistu sa ñàkk xam bu la yóbbee ak rëy rëylu seytaane doya dal sa kanam ñaan yàlla ba moom seytaane mu ñu occupé sa xol su ko defee dangay ngay perte laajoo boroom xam-xam yi jàngoo alquran kër ba nga jokku sax kilifa ba xàll yoon woowu xeetu ñaan yàlla yu mu bind bàyyi ko fi gémmuloo ci gëstu dara yow nooy ñaanee yàlla xamoo ko mënoo ko laajte ko yow doo ñaan yàlla su boobaa seytaane mooy ñëw gis espaas bi de yàlla nekku fi kon fii maa fi wara a ferenkulaayoo bu ferenkulaayoo sa xol mu di la tegtal ay aliyim ak ay associé ñu mu associé ci kaw suuf si ngay dem si ñooñu ñu di la wax ngay gum ñu di la tegtal ngay jëf ëllëg nga bokk ci gaayam yi ko yóbbee mooy ñàkk ñaan yàlla allahu akbar moo tax yonent bi sallallahu abi hurayrata man lam yas'alillaha ta'ala képp ku nga xamante ne bañ na di ñaan yàlla buur bu màgg bi nga xamante ne amul dara la doomu aadama bi di soxla lu dul mu ci xam-xamam te mu ngi ci nguuram subhaanahu wa amul dara ndax moo la fi andi moo la bind la nga soxla moo la ko soxlal la mu bëgg ci yow rekk mooy léeg-léeg nga xam ne am na buur bi fi nekk te mooy sama borom dama kaa ñaan waaw bi nga doon gën si àddina dañ laa ñaanal juróom-ñaari fan ba nga gën ci àddina ci lañ la jox tur ñaanal la yàlla fan bu gudd wér gu yaram yàlla nga doon jullit akkan ci biir société jullit ñi loolu ña teewee sa bés boobu loolu lañ la ñaanal yàlla nangu ñaan boobu bi nga màgg nga ràññee nga xàmmee lu tax doo ñaan yàlla nga dund bii jël soxna ñu dem ñaanali la ñu ñaan yàlla pour mu valider sa diggante ki nga war a dundal néegu sëy bi léegi ñaan bi di continuer yow it nga am takkandeer ci kaw suuf nga woon nit ñi gannaaw ba mu amee juróom-ñaari fan ñi ñëw ñaanal la yàlla nga tudd gan boobu gane si ci sa famille bi léegi ñaan yàlla baa ngi wéy waaye yow mosoo si def benn lal na lu ko waral danga xamul walla rëy rëyloo la dugg walla ñàkk xam bu fekkente ne rëy moo la dugg fee sa xol gannaaw bi nga déggee waxtaan bi ci réew mi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bi seppil rëy woowu sa biir xol sànni sa àll ba nga daldi di sensé sa comportement bu dee ñàkk xam moo la ko yóbbee nang ñu dékk nopp ci waxtaanu fajar bii di jaar fii ci réew mi FM du ñàkk ñun ak yow ak mboolem ñu ñuy may nopp ñu jële ci waxtaan bi lañuy njëriñ fii ci suñu dund àddina waaye ëllëg bés pénc bu ñu ko yàlla yërëmee mu daldi ñu ko fay yiwu ci suñu téere yi jëf kon mbokk yi ki yàlla yónni ci xeet bi sallallahu alayhi mooy baaxee xeet bi nañu man lam yasalillaha taala yagdabu aley képp ku dut ñaan yàlla buur bu màgg bi buur bu kawe bi nee na yàlla da kay mere kon bi léegi nga déggee ci maanaa xadis bi di ñaan yàlla day tax yàlla du la mere waaye ñàkk ñaan yàlla day tax yàlla mere la te merum yàlla nag loolu daa xejul ci kenn waxatuma lak doomu aadama bu lompoñ bi kon yàlla dafa xamal yonentam bi sallallahu sama jaami ñu di ma ñaan ngir ma bañ leen mere yàlla dafa xamal yonentam bi sallam ne waxal sama jaami ñu di ma woo ma di leen wuyu ñu di ma ñaan ma di leen may ñu di ma di seeni soxla ma di leen ko taxawee jalla wa ala subhaanahu wa taala lii la bëgg ci jaamam yi ba ko wax yonent bi yonent bi baaxee ñu ko ci xadiisu abi hurayrata radiyallahu anhu ñu nit ñu di leen koy yeggee ci suñu kemtalay kattan fii ci daara ju mag ji di Rewmi FM 97 point 5 mbokk yi waxtaan bi jeexu dañoo yegg ci fu ñu war a yëkkatee jotaay ñuy ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala an yarzuqana min alladina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana ki leen doon jottali kàddu gi mooy seen mbokku Ibrahima Dramé moo ànd suñu technicien bu mag bi di jaawo jàlloo ci wàllum xarale gi saa ilina mawla jalla wa ala an yaxfada bilaadana min alfitan maa dahara minha wa ma batan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 wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu wa barakaatuhu wa barakaatuhu wa barakaatuhu